diwlinu ñaani moom la euh, Sophie di euh, toggee Sophie nag euh, wutal na boppam tur nee na mooy jeeg bu amul benn bakkaar. <laughs> rek waaw foofa ne rajax. <laughs> Sophie nga ni yaay kan. jeeg bu amul benn bakkaar. rek foofa ne rajax foofa toj <laughs> waaw. kon naka la ko xale yi di waxee wax amul dara xewul. dara rek kay togg. maa wax lii. ayca <laughs> jéeg bu amul benn bakkaar nga ni looy togg tey pasta viande à la sauce rouge. waaw oh, oh, Baye euh, comme ni ñu ko woon sànq. wax amul dara xewul Sophie rek mooy togg. dara xewul man rek maay togg. kese instant bi maa ngi tegoon viande muy ñoraale en attendant. ñu ñëw eh? euh, déjà ni baay comme ni ñu koy defee à chaque fois comme que ñun dañuy course ak temps bi comme ni nga koy waxee. Hmm. Euh, viande bi jot nañu ko def ci li nga xam ne mooy suñu marmite bi daal di ciy def ay daal ah, def tuuti herbe de Provence def tuuti sel. poivre bàyyi ko ci nag ba nga xamante ne ni yàpp bi dafay ñor euh, bu baax en attendant ñuy ñëw euh, déjà ni ñu daggoon suñu oignon ba mu sew bàyyi ko fi mu ne nag mën naa yokk gaz bi parce que dama wàññi woon gaz ba mu des tuuti mën naa ñëw rek daal di ciy def li nga xam ne mooy oignon bi gis nga ni nag tey dama def soble bu xaw a bari dama jël 4 oignons moom laa émincé nii ba mu sew de préférence <laughs> gis nga ni waaw ah, viande bi nii rek moom laay euh, mélanger ba nga xamante ne ni dafay ànd ak moom gis nga ni euh, comme te sauce rouge laay def dama am tomate concentré jël benn tomate fraîche boo xamante ne nii gis nga tomate bi euh, dama ko râpé gis nga moom laa râpé nii ba am benn coulis de tomate boo xamante ne nii moom laay sotti ci ci kanam déjà nii damay ñëw jël tomate bi gis nga tomate bi jarul muy bari benn sachet rek laa def daal di ñëw mélanger voilà gis nga nii nag su ma paree mën naa jël li nga xam ne mooy euh, tomate bi nga xam ne dama ko râpé frais bi nag laa ci soxla moo tax ma ma râpé ko bu la neexee tam boo amee sa machine yi nga xam ne moom la ñuy mixé tomate mën nga ko ci mixé mais tamit de préférence râpé bi dafay permettre nga garder li nga xam ne mooy fraîcheur tomate bi dangay am euh, li nga ci soxla yépp parce que bële des fois nga mixé ko ci mu am euh, ndox bu bari mais bu la neexee tamit mën nga ko ci mixé lii nag euh, dama am euh, mélange d'épices boo xamante ni moom laay utiliser li nag dama jël paprika jël poivre tuuti jinjeer ail en poudre moom laa jël mélanger ko li nga xam ne mooy pot bi moom nag euh, dama ko ciy ñëw def directement mu nekk mélange d'épices boo xam ni boo ko ci defee automatiquement da ngay sentir goût viande bi déjà bu ma ko ci defee dama ko ci mélanger gum damay ñëw jël li nga xam ne mooy piment vert ak jaune ak rouge moom laay <laughs> man moom laay jël gis nga nii rek dagg ko en parce que moom tamit dafa bokk ci li nga xam ni dafa bokk ci togg gi dafay relever li nga xam ni mooy goût bi gis nga ni bii mooy piment safia bi mooy vert bi. xanaa saful. <laughs> non bii moo saful. mais bii dafa saf. ma ñëw tamit jël tuuti piment jaune. parce que tamit viande boo koy togg dafay am yu muy àndal dafay laaj nga def ci ay épices. def ci piment ba mu am goût. parce que sinon rek nit ki du ko mën a lekk. gis nga nii nag ma boole lépp daal di koy émincé. aw ma benn baakaar ma doon voilà gis nga nii nag ñu émincé ko nii ba mu sew toujours boo xoolee man samay togg dama ciy def li nga xam ne mooy euh, persil coriandre parce que dafa baax ci suñu wérgu yaram dafay relever tamit li nga xam ne mooy euh, guubu togg bi sang bi ma doon mariner viande bi def naa ko ci nii damay ñëw rek dolliwaat ci mu gën a neex loolu seetlu dinañ ci ñëw ci kanam parce que moom tamit dafay neexal li nga xam ne mooy euh, suñu plat du jour tey bi gis nga nii nag ñu émincé ko ba mu sew daal di ñëw rek sotti ci directement gis nga nii déjà Mado odeur bi baa ngi commencé di dégager su ñu defee noonu ba pare nag dañuy ñëw rek sotti ci li nga xam ne mooy olive vert. noir olive waaw plutôt olive noire. Mhm. déjà nii am nañ fi sellerie sellerie nag ku ne xam na ni dafa fort. Mhm. te odeur bi dafay gaaw kii moo tax benn bouquet bi jarul sax ñu koy dagg. Mhm. moom rek ngay jël directement nga def ko ci mélanger ko waale ak moom. waaw pour mu jokk voilà am naa fi li nga xamante ni tamit mooy euh, pasta bi gis nga pasta bi nag pour nga am benn pasta boo xam ne dafa alimenté du du du da ngay def ndox mi ba mu baax nga def un de sel dugal ko ci bàyyi 7 minutes nga génn daal di koy segg jël huile bi nga xam ne moom laay toggee laal ko ci tuuti nga xam ne du collé tey nag dama ko mélangé ak li nga xam ne mooy macédoine de légumes am na carotte am na tuuti haricot vert ak tuuti navet moom laa ko mélangé gis nga ni lii déjà dafay nekk plat boo xam ne dafay euh, gaaw a ñor parce que soble bi dañu ko émincé ba mu sew li boo xoolee sax du euh, doo ci sentir li nga xam ni sax mooy oignon bi voilà mhm. gis nga ni goût bi exact na damay njëkk ñëw euh, jël li nga xam ne mooy euh, pasta bi daal di ko ciy rajouté lii nag moo taxoon pasta bi du jar nga koy togg mu ñor torop parce que parce que day delluwaat ci li nga xam ne mooy biir cin bi léegi fi mu ne nii nag dañuy mélanger gis nga mado lii bu la neexee. mën nga ko def ci benn plaque buy dem au four. Mhm. sotti ci fromage bàyyi ko mu gratiné bu la neexee nag nii rek mu mel nii rek mën nga ko lekkee ni voilà gis nga lii nag mu nekk benn plat bu rapide fi mu ne nii nag pare na mado mhm. dañuy fay gaz bi naan ko donte pasta bi ñoroon na ba pare dañuy ñëw rek jël suñu benn assiette mën na ñëw jàll ci li nga xamante ne nii mooy dressage bi parce que moom tamit dafa am solo ci li nga xamante ne nii mooy cuisine bi damay ñëw rek. nettoyer li nga xam ne mooy euh, assiette bi voilà daal di débarrasser carrément li nga xam ne mooy plan de travail bi dafa am solo ci togg Madou mën naa ñëw jegale nii li nga xam ne mooy marmite bi <laughs> Bachir <laughs> daal di jël rek li nga xam ne mooy euh, tomate yi daal di koy dagg en voilà jël tomate moom laay def rekk ci rebooru assiette yi voilà beneen côté bi ma jël poivron vert voilà nii rek nii rek daal di koy fermer ma pare rek ma ñëw jël li nga xam ni mooy euh, suñu pasta bi voilà mu nekk benn plat boo xamante ne ni mën na servir de dîner wala déjeuner ça dépend attention loolu mu mënu cee ñàkk mu ngi foowee xel yi <laughs> gis nga nii bay Cheikh nii rek suñu plat du jour daal di pare ñu daal di jël euh, benn piment rouge rek moom tamit daal di koy teg nii rek. ci kaw topp ci kaw waaw. mu doxal. <laughs> Eh boo amee persil wala nga jël euh, soit céleri wala persil émincé ko waat ba mu sew rek daal di sotti ci kaw ci kanam tuuti rek ma andi ko euh, jox ko sama jaam bi nga xam ne maa koy sumi mu dégiste <laughs> <laughs> allez bravo bravo. <laughs> dinañu ñam léegi nii on va déguster dans euh, quelques euh, minutes.